yaa nañu yàlla may gudd fan ak wér. bëri kan nga gis mooy sa naataangoo ci làmb ji fim mu toll nii ndax damaa bëgg nag jot na ëbbali wane boppam ci bëri dóor lutte avec frappe. surtout parce que ñu ma koy laaj dañoo bëri xam nga man dama dama dama dama dama waaw man xam nga man dama dama dama di dama di ndaanaan yee man damay animé internet yi ñi may seetaan mun nañ am man man damay def gu garaaw làmb ji mun naa ne maa si dàq fecc animation te kenn ëpp ma safara si biir géew comprendre nga waaw te bu dee ginnaaw mbooloo ñun sant nañ yàlla ñun Dakar lañ juddoo fi lañ yaroo fi lañ màggee parcelle unité 7 comprendre nga kon bu ñu jógee tey am nañ ay nit yoo xamante ne dañuy jàppale bu baax a baax di yëkkati seen xaalis di ko def si ñun comprendre nga fi waxee mais bëre dóor bi nii nii nii nii xam nga si lañ gën a bëgg a con gën a concentré parce que simple bi wax dëgg yàlla ñu xamee tey bëre simple bi moo tax ñu xam ñu ko quoi mais bëre dóor bi tamit wax dëgg yàlla bëgg nañ si gën a bëgg nañ si gën a waaw bëgg nañ si gën a bëgg nañ si gën a góorgóorlu bu baax a baax waa wax dëgg yàlla bëre dóor bi bëgg nañ ci gën a góorgóorlu bu baax a baax waaw waaw. bëggoon xam yow sa diggante combat arène bëre dóor ñett adversaire yoo xam ni mën nga ma leen a limal ni ñii maa ngi moom buñ dajee dóor la te dina ne waaw. Euh, man instant bii nii instant bii nii ñi ma gën a soxla laa lay wax Ndiaye 2. Coréas. waaw yaa ko xam. boroom dóor mu daanu yi. xam nga gaay ne day dóor fan day dóoraate fan yi ñuy daanu te bi saison bi door a ubbi dañoo bëre mbapat ñaari yoon mu daan ma champion la nag wax dëgg yàlla di ndaanaan. te xam naa ne sax dina yori ji tigre de face bi parce que booy bu am jom la waaw sama gaayen la moom moom sama waay la buñ buñ buñ da si biir géew waaw parce que xam nga maag moom instant bii nii deux deux la waaw mais instant bi dama bëgg nag ñu weeral ko quoi waaw Serigne Ndiaye man nëbbatuwuma barki Serigne Touba Mbacke. donc ñu leeral ko ci bëre dóor. ñu leeral ko si bëre dóor waaw dafay garaaw. loolu dafay garaaw instant bi dañoo war a xam nga moom keroog maa ngi seetaan benn interview mu ne dañoo war a jël ténor yi nga xamante ne nii ñoo ñooy maanaam ñi nga xamante ne si nga am bu simple comprendre nga ñooy ñooy ñooy ñooy yëngal affaire yi. ñoo ko téye dëgg. ah bu ñu nekkoon dix personnes wala ñu ne quinze personnes xam nga promoteur yi tegal ñu benn somme rek ñu def ko benn genre gaga bëri dóor. <laughs> mais loolu dina bett dina neex ay garaaw. barki Serigne Touba Mbacke. ëppali ne. Cheikh Tidiane fa. Boy Faye ne fa. Thiaka Faye ne fa. Fara ne fa. Bir Saale ne fa. <laughs> yow dafay garaaw <laughs> général mag sama copain Zé <laughs> fa non dafay garaaw. yow dafay garaaw pourtant nag galaa bu doy waar a ngi noonu. gars bu ñu defoon wow rek. ah ba Ibou Ndiaye war a tase ak ah, mu nekk diggante parcelle ak. Malika li nga wax nii lu ma leer la ñëw ak ñëwaat ak franc comprendre nga caaka fay jël keneen affaire yi jaxasoo ba final bi ah parce que ñun ñooñu ñoo fi ne comme yeneen gars yi ñëwee wuñ ñoo jël mais ñun nañ bëri suñu biir parce que làmb ji boo bëggee dëgg-dëgg amatu yóbbu comprendre nga ak toog sa koñ tamit di entraîner rek xam nga naan mbër laa te doo wàcc ñun xaaruñu combat ñun bu ñu amee combat dañuy bëri bu ñu amul combat ñun si mbapat mi di compétir. comprendre nga ay mbër lañ te loolu mooy suñu job loolu mooy suñu métier amuñu leneen lu ñuy def lu dul am comprendre waaw moo tax nag gisoo gars yi dimanche bu jot te gisuñu ñu rek dañuy dañuy dañuy woote di jaaxle gisoo 10 millions yi passé lu ne dégg naa ko si Ibou Ndiaye dafa dox Ibou Ndiaye nanga mais xam nga rek dañuy bëgg nga ñëw te duñ comprendre waaw mënoon naa ñëw wàcc si mais xam nga parce que gars yi dañuy namm sama man sama dugg si biir làmb rek jar na 200 milliards nga génn naa dem ñibbi dafa am nit non mais sama sama dugg si ak samay samay samay affaire si biir géew rek dafa doy waar waxatuma la nag bëre bi ñëw comprendre nga waaw dafa am bëre yoo xamante ne genre tournoi yooyu bu amee te gars yi gisuñu leen rek da ngeen di manqué parce que affaire bi du ñëw rek bëre daan jël làmb ji dem am na mbër yoo xamante ne dañuy jël làmb mais du saf nit yi mais dafa am mbër yoo xamante ne gars yi di bëgg di gis. mbëru cosaan mbëru aada bu bëgg ñu xam ni champion baa ngi nii tax. waaw loolu dafa am dafa ne si man quoi. waaw daf ma ko may su ma ñëwee samp sama béjjën xam nga gars yi dañuy gis ancien guwaar di gis ay mbër yu yàgg yi ay maam njambaan ak ay yi ki nekk xam nga suñu papa yu waaw waaw ay ñoom Ousmane Deb Diofior dafa amoon ay champion yoo xam nga dafa am paa yoo xamante ne suñu ñëwee adressé nga di seetaan sax wala si làmb yi nga si Ibou Ndiaye dugg si xam nga yor béjjënu kooba bi weekoo séeru séeréer bi takk ay sagañ sagañ ñëw samp ñu sotti ko bitee mu yënga jaayu dem ñëwaat xam nga dafa bokk si affaire yi quoi. dinaa ñëw ci ci mbiru séeréer bi sax dëgg séeréer bi waaye damaa bëgg a xam ni gala bi nga wax nii bu ko promoteur yi tëggoon làmb ju neex la parce que ku mel ni Assane Ndiaye Fallou Ndiaye ku juum sama papa nu mu tuddati euh, Pape Abdou Fall ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xamante ne ay promoteur la bëgg nañ làmb yooyu mais li ngeen di laaj ëbbali ci kase làmb tollootul foofu làmb fi mu toll nii ku ne xam na ne sponsor amatul ci làmb te làmb metti na te yéen mbër yi da ngeen war a ëf seen loxo pour promoteur yi mën leen a tëgg ëbbali waaw dëgg nga loolu moom dëgg ko quoi mais affaire boobu daal xam naa ne buñ ko organiser woon mais nga gisul doy waar parce que naa la xamal dara gisa amateur yi jamono ji dëgg neexu quoi mais dañu jox bopp yaa ngi gisoo sa bopp 10 millions yi stade bi bi mu ubbee ba léegi làmb ji gis nga mu feesee noonu bi stade boobu bees boobu noonu ubbee ba léegi parce que xam nga tax amateur yi di sawar bu genre mission yooyu noonu amee ñëw seetaan amul ay naxante bëre nga fay gis te imaginer yow ténor yi ngay namm si bëre dóor ñoom ngay gis foofu ñuy mbëkkante amul naxante amul tricher xam nga te gars yi dañuy rayante gars yi dañuy bëri ngay gis bëre pur te bëre simple doo si gis euh, benn euh, violence gars yu làmb ji du jeex ba nga dégg ne këf nañ posetu nit wala nangu nañ téléphone jàmbur yooyu ñun xamuñu ko amateur dañu ñëw gaari seen i oto sangu ba set toog xam nga stade bi fees del moto yu oto yi gars yi ñëw toog di seetaan comprendre nga public boobu nag ñun ñoo ñu topp ba arène promoteur dañ ko xamee noonu te ñun dañoo am jàppale ñu ngi sant yàlla bu baax man dafa am ay kilifa yu mag yu nekk suma ginnaaw ku si mel ni ministre Amadou Ba comprendre nga ministre des affaires étrangères ay ñoom Mamadou Diom xam nga ay ñoom maa xamat xam nga maire Diof yooyu Youssou Diom comprendre nga ay ñoom toto dafa am man dafa dama am kilifa yoo xamante ne nii ñun bu ñu amee combat rek tey su ma amoon combat rek maire Diof yooyu mën a jënd billet yëpp xam nga man séeréer pur sang laa. séeréer pur sang ba tax Yaxya Diop ne mbaru séeréer yi. war nañoo xoolaat fi ñuy teg seen tànk parce que li ñuy perte bëre simple dafa bari trop boo bëggee doon champion am na loo xamante ni da nga koy wane ci làmb wax jooju yegg si na waaw Yaxya Diop moom xam nga suñu papa jooju noonu wax dëgg yàlla euh, nit ku nit ku ndaanaan nga xam nga di nit ku baax waaw wax dëgg yàlla parce que ñun dañuy déglu ay conseil am quoi waaw euh, xam nga rek ku bëre ba bàyyi bëre moom li mu wax si bëre bu yeboo nga takk ko téere. waaw di ko nuyu di ko di ko di ko sant di ko gërëm bu baax a baax a baax parce que ñun dañuy dégg ay conseil bu baax waaw li mu wax nag si mbër dëgg la xam nga ki Yékini benn wax la mu sa wax ma siy bàyyi xel muy mbër day nelaw guddi te wax jooju noonu ba léegi day nekk suma xel mbër day nelaw guddi. fii moom sa waay ku fi bëgg a dégg ne ngay romb ñaan diwa ngi ne walla eh diwee. il faut nga moytu yu bëri parce que làmb dafa fiir maanaam loo ko boolee mu bakoog yow ah mais xool ma rek soo ma xoolee xam ne kii day nelaw guddi day lekk bu baax day bu baax comprendre yow boo xam ne sama hygiène de maa ngi sant Serigne Touba <laughs> ah mais xool ma rek. Ah, xam naa ne daal mbër gi te bi ngay wu ma xam nga kanam yooyu nga xamante ne nii. mbër a <laughs> man moom maa jaxase benn man moom maa ngi moom man moom wax dëgg yàlla moom waaw ah, nice quoi man moom damay nelaw bu baax. xam nga dama damay wekk wekk bu baax xam nga waaw wépp nice quoi sant yàlla bu baax wax dëgg yàlla. yee parce que. ci jot na. waaye boo amul Serigne Ndiaye 2 kan moo ci topp. waaw su ma amul Serigne Ndiaye 2 man samay naataango rek ñoom soo ko Sokosim ñu ngi fi comprendre nga mais nag man dama xaw a bëgg mbër mu soxor quoi comme. Gris 2. waaw Gris 2. <laughs> la man ak Gris 2 am yow. Gris 2 de barki Serigne Touba Mbacke fii nga ko waxee si wasaare. Gris 2 mais Gris 2 est-ce ma jëgër sax parce que Gris 2 nag. xam nga rek mooy googu. daal ci bu ma jëgee ah dina métti si moom de. ay ëpp yaa am fit. barki Alxuraanu Karim Gris du ma jël man ñooñu laa soxla. ay Gris 2 parce que catégorie boobu laa bokk. léegi looy wax Gris 2 lay xool. waaw mais mbër di ko wax ne xam waaw nañu may chance parce que. waaw nañu may chance. <laughs> ah kon Gris 2 paa la. du paa mais Gris 2 nañu may chance rek. ah Gris na xam nga ne wax dëgg yàlla nag ah Gris 2 moom nañu may chance rek waaw ah, pare nañ daa pour xam nga bëre promoteur yi nañ ñëw tëgg suñuy combat ñun amuñu problème mu mbooloo amuñu problème mu ginnaaw comprendre nga man bu ma jugee séeréer yëpp ay jóg marché jaakatu sare dawakatu dañuy jóg port. liggéeykatu yennukat yi nekk xam nga séeréer dañoo am jom dokeer yi xam nga séeréer yi moom macha allah séeréer dafa am jom wax dëgg yàlla Sénégal bi mu nekkee Sénégal bëgg defe naa ne mosoo dégg séeréer du kesoon na nag waxuma eh, <laughs> yeneen xeet yi waaw xam nga balaa gars yi di ko gisee ne leen mais séeréer dafa am jom te man séeréer dafa am fu ma teg te man xam naa ne wallaahi azim su ma amee combat lu ma promoteur jox say billet ma jaay ko. parce que du si marché yi Ibou Ndiaye fu ma dem Ibou Ndiaye port su ma fa demee dama am programme sax pour génn comprendre nga ñu naan ma combat combat moo tax su ñu amee combat wallaahi asim jour boobu noonu gars yi dinañ gisu garaaw parce que bu nekkee animation rek comprendre nga ak rythme xam nga te man dama am orchestre boo xam te ne ñoo may tëggal man dama dégg dama nekk mbëru séeréer boo xam te ne su ma njuugee nga ne nga gis yax ya jóg mais kenn dàqu ma fecc waaw xam nga yooyu dafa garaaw te xam nga moo tax dama am orchestre boo xamante ne nii sama booy waa Dose waaw ñoom Habib yooyu di ko nuyu au passage dama am booy yu may tëggal am ay piano ak yëpp ay suma amatee combat nga gisu garaaw. promoteurs yi ñëw leen seet si Obeuly mu ngi fii ci Parcelles Assainies xale la boo xamante ni macha allah Jax Fallou Ndiaye Assane Ndiaye xale baa ngi noonu Obeuly jox leen ko combat ñi mu wax ay naataangoom lañ. bu laajee Gris baax na bu laajee Coriace Serigne Ndiaye numéro 2 lamb la tal Serigne Ndiaye numéro 2 ak Obeuly yu tëj arène nationale rek tuq sa bënn saaj ba réer la loolu wasaare. te gis nga Jax mi muy Jax sama père Jax xam nga moom tamit ñu koy sant di ko gërëm parce que mu ngi jàppale mbër yi comprendre nga parce que tey bu demee bay teg ay miis yu mag yu toog noonu ay 10 millions di ko tegal parce que mbëru simple. lamb simple dafa métti lamb simple mbëru simple mérito na 50 millions ñu teg si benn ngoon ma imagine toi yow premier combat ba ba ngay jël final loolu du ay caaxaan moo koy jël te du ay négociation u simple mérito na wu ne Jackson nag mu ngi ñuy jàppale bu baax a baax mu ngi jàppale mbëri mais dama xam benn affaire quoi mu ngi ma fan yee passé aas na ma sama ménagère ne ma Jackson comprendre nga moo ko woo ne ko dafa bëggoon sama combat man ak Caaka Faye arène mais xam nga tamit wax dëgg yàlla caako du dóore te man dama soxla ku may ku koy dóore. sa tëggal moom a euh, Serigne Ndiaye de lamb la dama wëri giri waaw ñoo ñëpp ñoo ñëpp combat la. comprendre nga. comme dama bëgg kuy dóor ardo comme Eumeu Sène Gris Bordeaux. waaw genre combat xam nga su ma amee ñoom Serigne Ndiaye xam nga général Malika man ak moom dara dàqu ko. xam gis nga man moom. général am na combat ndax jël na fils de balle. waaw mais xam nga tamit général na ñëw jëw ñu. am na fils de Balla mu ngi ci contrat Balla mu ngi ci contrat amul programme di ko ñaanal xam nga mu am ndam mais xam nga ne man dama am ñoo am ne soxla dama soxla gars yi dóore comprendre nga ñoom Serigne Ndiaye 2 ñoom Soko Sim comprendre nga ak kan ngaa waxoon sànq Gris 2 xam nga Gris 2 moom bu arbitre prix rek day ñëw sa kaw comprendre nga diwoo affaire am yu weex yooyu xam nga daw di nga koj <laughs> comprendre nga dégg sëñ Bas nee na Elton. waaw Elton tamit mais nag sëñ Bas yaa ngi door a wax samay adversaire waaw a wax samay adversaire parce que ñooñu tey jamono ji ñun ñoo a may sax chance laa mën a wax parce que lamb dafa ko nag ngir dara mais ñun tey ah fu ñu am combat wéppay neex comprendre nga kon tey promoteur dinañ ñëw comprendre nga wax ak ñun woo sama ménagère As. comprendre nga ñun suñu dara seeru suñu dara météo nañ wax ak aas na ñu woo rek nañu am nga combat nga temps préparé jox ñu mbër mu soxor ñu préparé ko ni ko war a préparé jour combat ba ñu ñëw ànd ak suñuy mbokk comprendre nga ànd ak sama mbokk yëpp ànd ak waa parcelle 1 ba 26 ànd ak sama gars yëpp sama booy yëpp di ànd ak ñoom comprendre nga ànd ak samay mbokk séeréer di ànd ak waa Diofior di ñëw man su ma amee combat promoteur bi at sama adversaire bu mu ko sax jox billet. bu ko neexee na ma jox billet bi moom ak sama adversaire na ma jox billet bi man li may wax nii dama ko xam te après combat bi bu combat amee ba après combat bi dinañ toogaat nga ne ma Obeu gi non waxoo woon lii wala promoteur dina nga ne jox nañ ko fi suñuy billet wala jox nañ ko si xam nga promoteur dañuy wax man promoteur bi ma jox ay ma jaay billet yëpp ñëw indi animation si làmb ji toj làmb ji. maanaam yow promoteur bu loo tëgg di nga bëre jaay billet yi indi ambiance indi sponsor du ma daan dem ñibbi. waaw googu googu moom googu yaa nga toog. loolu moom ñoo ko déggandoo mbokk yi kon Obeuly li ñu amoon ci waxtu jot na xanaa ñu bàyyi la nga tàggoo rek ñu dem. waaw di ngeen sant di ngeen gërëm wax dëgg yàlla waxtaan bi neex na waaw di nuyu mbokk internet yi seetaan wasaare TV xam nga di ngeen sant bu baax di ngeen gërëm quoi parce que ñu ñuy suivre. ñu ngi ñuy doogal xam nga di ñaan tamit xam nga lépp lu ñu wax si waxtaan bi rek loo xamante ne nii naa naak lu euh, ñaaw wala leneen ñu xam nga ñoo ngi jégalu waxtaan wa rek ak neexal mm, sama mbokk mbër yi nga xam te ne tamit tudd naa fi seeni tur xam nga euh, mun na am mbër déggee sama wax neneen maa ngay jégalu xam nga bu fekkee ne wax naa noo xamante ne nii waruma ko waxee xam nga maa ngi jégalu bu wér a wér te xam ne dañuy neexal rek xam nga làmb rek comprendre nga rek moo may tooñee xam nga di nuyu ñëpp di nuyu waa Amérique xam nga di nuyu suma grand baay Paul xam nga Amérique ñoom dolfu comprendre nga di nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu suma waa dëkk waa Diofior di sant bu baax séeréer di wen gërëm parce que xam nga ñu may ñu may ñu may jàppale te awma seen fay di nuyu suma fans club bi yëpp xam nga di jël nuyoo bi di ko teg si loxo Arona Sarr comprendre nga Kangou Jangar maa ngi lay nuyu di ko gërëm ñoom ministre comprendre nga maa ngi nuyu ñoom euh, fils de Diofior comprendre nga di nuyu waa Diofior yëpp di nuyu suma grand mbër yi nekk foofu noonu di nuyu booy mbër yi nekk Diofior di nuyu suma raq yi ñoom Babou Sarr ñoom Dout Sané comprendre nga di nuyu ñëpp di sant ñëpp di nuyu suma waa koñ waa parcelle xam nga di nuyu promoteur prince raxam nga àndal ni Badara Cissokho ñoom saagi sama gaay nii yëpp maa ngi nuyu comprendre nga di nuyu sama waa koñ di sant ñëpp di gërëm ñëpp xam nga di jégawu nag wax ji bu fekkee am na lu si ñaaw rek maa ngi jégawu ñëpp waaw di baalu ñëpp xam ne dañuy wax rek pour euh, neexal quoi di wax gars yi nag rendez-vous si biir weekend yi di ñëw incha allah rabbi dinañ ñëw wane wane lu bees tax. noo gisee wasaare lamb ci lamb. yéen moom temps yi dafa mel seen seen i bitéew baax na moom temps wax dëgg yàlla waaw temps yi moom wax dëgg yàlla dama ngeen di suivre bu baax waaw di gis abonné yi di gis commentaire yi waaw gars yi moom wax dëgg yàlla ñu ngeen di suivre bu baax baax di ngeen bàyyi xel di ngeen ñaanal tamit ngeen dem ba télé bi dem ba euh, affaire bi dem ba nekk télé xam nga sax waaw incha allah rabi ngeen dem ba mel ni TFM ak xam nga ay Sen TV ak yooyu noonu yëpp incha allah rabi yal na leen ko suñu borom defaral si barki Serigne Touba di nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di sant Serigne Touba bu baax di nuyu waa Casamance bu baax a baax di nuyu suma nijaay ab Abdoulaye Diédhiou di nuyu waa Djibi Dione di nuyu waa Bignona bu baax xam nga di nuyu waa Kañaru di nuyu waa Ñankit waa Biringoy xam nga di nuyu waa Casamance yëpp di nuyoo ba nuyoo ba nuyu waa Majee Jaam ñi dëkk Casamance nag xam nañ fi may wax bu baax di nuyu Casamance ku commencé Bignona ba ba ngay joti Majee Jaam frontière ba maa ngi nuyu ñëw ñëpp di nuyu suma waa dëkk waa Jibijoon waa Masara waa Jijiroo ñëpp maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp parce que ñun fu nag a ñuy dugg fu nag a ñuy ñaanal waa di sant ñëpp di gërëm ñëpp quoi di nuyu waa Parcelles yëpp waaw di nga nuyu yow ji bi vraiment waxtaan bi neex na waaw kontaan si yow tamit sant naa nga gërëm naa nga waaw jërë ngeen jëf mbokk yi seetaan wasaara làmb noonu la ñuy leen di tàggoo ci tàggoo bi nga xamante ni moo dul tàqalikoo ba ëllëg incha allah ci xeexewu làmb ak beneen ndaanaan jaa ngeen jëf.